ku maa ngi lay nuyu sa tur soxna Thiara Gaye commission communication moo nekk ci kàddu gi ku nekk nag xam na ne lislaam wi si góor yàlla yi di bay moom la ci soxna yi am tamit amu ci xaaj ak seen léegi dañu bëggoon tàllal suñu micro soxna yi ñu wax leen ñu wax ñu gaaral ñu nu ñu taxawoo liggéey bi booba léegi ak ban sentiment lañ ci am ñuy jox kàddu gi soxna Ndeye Xaar soxna yi ñu jox ko kàddu gi. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk trop santam di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax a baax. di ñaan sëñ Sidi Mokhtar xalif général day murid yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem xalifa yi rek di ñaan sëñ Abdou Karim Wade sëñ Aziz Bara yàlla na fi yàgg te wér ak mboolem xalifa yi rek ñu ngi sant Serigne bu baax a baax nag ci fekke gi nga xamante ni fekkee nañ ko euh, journée xasida bi nga xamante ni fédération Majmahun Nurayni ñoo koy euh, taxawal ñu kontaan bu baax bokk ci gi nga xamante ni bokk nañ ko ci liggéey bi nekk ci ci commission culturelle bi ñu nekk ki nga xamante ni ñoo ko jiite te gën cee xeebu ci ndongo yi bu baax a baax a baax comme daal liñ ciy def daal mooy ak kàddu sant lañ ciy def ak ngërëm di sant Serigne Touba bu baax nag ba mu ñu boolelee ñi nga xamante ni jëwriñ ñu xamante ni dañ ñëw jiite dañ dañ nekk ay mag ba pare ñu ñu nekk euh, ay soxna ñu jox ñu suñu place bi nga xamante ni war a jox ci waar wi boole ñu ci liggéey bi lépp lu ñuy def laaj ñu ci suñu xalaat euh, ci ci ni nga xamante ni wàcce ay bis bañ ko dalee def ba tey bañ ko dalee waaj ba tey daal amul dara loo xamante ni leer nañ ci liggéey bi kon loolu ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax. sant la kay waaw sant a léegi soxna Ndeye Khar euh, comme yaa jiite durus bu fii dama bëggoon a xam ndax da ngeen a fixé woon benn lim boo xamante ne si ne da ngeen ko bëgg a ak tamit da ngeen da ngeen a euh, woon ay xasida yoo xam ne da ngeen ne xasida moom lañ bëgg a di koy di ko séddale ci mbooloo. yàlla def na commission culturelle euh, at yi ñu weesu yëpp suñu borom ñu am ay xasida yoo xam dañ koy fàggu mënu ma ne xasida Serigne Touba yëpp waaye yéen ci gën a xam rek lu mel na jaale matul maraani euh, mafaatihul bichri sindiidi toxfa matlabu shifa euh, xasida yu bëri daal yoo xamante ni yu Serigne bi bind la yu baaxoo di dund ñun mbooloo bi ñoo ko fàggu seen bopp commission culturelle di ko def bis bu bis bu jubsee ci bis bu xëyee toog pour euh, dañuy wër ci mbooloo mi di ko joxe ñii di ko dajalewaat loolu moom fàggu nañ ko bu yàgg te ci ci la ñuy nii ci suñu euh, xasida yi ngir lal ngir bëgg euh, dara am ci ngir kenn ku ci ne yokk ci kenn ku ci ne yegg ci sa niñ ko fàggoo ci xasida yi tamit noonu lañ ko ndax muri muri moom léppam jaam yàlla la bu ñuy bu xoolee ci ñi jàng dañuy xool ci nga xamante ni jàng ñu jox leen kurus def ay baax yaat saalihaat ay astafurlah salaatu ne bisub jaamu yàlla ba xam ngeen ko ci ne moo ñëwee yokk ci yëg ci sa bopp loolu daal mooy mooy mooy taxawaay loolu lim bi nag wutaluñ ko lim dañuy dañuy dañuy durus rek ba ba ba jotaay bi war a yewee ñu daal di xayma liñ fi jàng yëpp daal koy gaaral borom ci alxuraan ak ay xasida si tuba ak baaxee ak saal xal ak salaat léegi xam nañ ko mooy responsable moral gis nañ ko ñu taxawoo bis bi ci appel bi moo jëlal boppam kàddu woowaalu fédération maj mu rek dañ koy sagoon bëree ndax moo ñu sagal ndax ñun ñëpp ci mbooloo ku ci gën a xeebu bu amee bisam bu ko waxee sëñ dan sëñ dan day dagg yitteem ñëw waaye du yem ci ñëw ko dana dindi loo xamante ni ci poosu boppam ci ñàkk boppam jox la jàppaleen ko ci bis kontaan ñu koy sant di ko gërëm waaye santam dañ koy jël rek jox ko ci suñu loxo jëwriñ sëñ Mbàkke Mbooj mu matale ko jëw euh, fédération bi yëpp di ko jox ci soxna yi tamit ñu mataleel ñu ko soxna yëpp di nga wax ne ñun daal sant nañ Sëriñ Tuubaa ba mu ñu boolee ku mel ne Madan Mbàkke sant nañ Sëriñ Tuubaa ba mu ñu boolee ku mel ne Sëriñ Mbàkke Mbooj ak ñi mu àndal ñëpp liggéey bi jigéen ñi kontaan nañ bu baax ci wàccuwaay gi nga xamante jox na leen sant ak kàddu gërëm di sant Sëriñ Tuubaa bu baax jërëjëf